الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk julit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom subhaanahu wa taala ñi ngi seede ne moom dong mooy yoon ñu koy jaamu ñu ngi koy ñaan mu julli ca jaamam ba suñu soppe ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla na ngeen sax ci loolu ba bu ngeen di dee fekk yéen a ngi koy jébbalul ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ku bëgg a texe adduna ak texe alaxira day nangoo topp ndigali yàlla ak ndigali yonent yàlla gannaaw loolu mi ngi nii day tiim ñu benn bis bu mag lool ñu koy tuddee bisu Arafa muy nar a am altine jii di ñëw yàlla na yàlla subhanahu wa taala yeggee la ñu cam gis la boo xam ne nii day suñu boroom def na ko muy ponk bi gën a màgg ci ak makka suñu boroom mu ne bu ngeen jógee arafa na ngeen jaar musdalifa ngeen tudd fa seen boroom comme ni mu leen jubale arafa ñu ngi noonu bis bu màgg boo xamee ne nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax al yowmu arafa al hajju arafa ak daal mooy arafa leneen lu la raw ci at man nga koo dabantal beneen bis bam dem bisu arafa benn bis la ci at mi su jeexee déewee na ci rek bis la boo xam ne suñu borom màggal na ko bokk na ci màggal googu kii di Omar ibn al-Khattab nekkoon ñaareelu xalifa ci jullit ñi benn yahud daje nag moom na ko ay yow mi jiite jullit ñi dégg naa ngeen di jàng ci seen téere day ab aaya boo xam ne bu doon daa wàccoon ci ñun ci tawraat bis boobee dañ koy def bisu feet omar na ko aaya boobu ban la mu ne na ngeen di jàng suñu borom di wax ni bis na ki tey matal naa seen diine moo matal naa sama xéewal ci yéen gërëm naa lislaam nekk seen diine Omar ne ko xam naa ban bis la xam naa fan la wàcce ñu ngi wàcc ci bisu arafa mu tombe woon ak bisub aljuma fekk yonente baa nga taxaw ci arafa di war nit ñi mu ne ko nag ñun yàlla defal nañ ko ñaari feet mbokk bisu arafa bisu feet la ñeel waa arafa waaye bisu ajjuma bisu feet la ñeel mbooli mi julit loolu mbokk bokk na ci ngëneelu arafa suñu borom yàlla subhanahu wa taala comme ni ko yonent bi alayhi salaam nettale dana wàcc nu mu ko soobe ci asamaan yi naan malaaka yu xool leen sama jaam yi ñi ngi jóge ci gox yu sori ak la nga xam ne mooy seen pënd ñooy fi yaakaar sama jéggal ak sama yërmaande maa ngi leen di seedeel ne day jéggal naa leen loolee mbokk da ngay gis ne gis la boo xam ne la ca yàlla di jéggal ay jaam la ca yàlla di goreel nit ki ci sawara yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn bis bu gën a màgg ci seytaani lu mel ne bisu arafa ndax la ñuy gis ñu koy nëj nar a rëcc ci jaami yàlla yi bëggoon a réeral yàlla jéggal leen yàlla goreel leen ca la nga xame ne nii moom mooy ca sawaram sa waaye mbokk julit yërmaande yàlla day yaatu na yaatu waaye boo xam ne du ko yemale ca waa arafa kese looloo tax ñooñee teew arafa day ñi ngi yaakaar ci ñoom la nga xam ne yonent bi wax na ko ci ñoom waaye yow mi nekkul arafa yow mi yàlla dogal aji juwoo makka ana lan mooy yoon ba nga mën a jaar ban wani waa arafa am te mooy yàlla jéggal leen yàlla xiiwal leen yow it nga am lu mel noonu mbokk da nga xam ni am na ñaari jëf yu rëy yu képp ci ñun war a bàyyi xel benn jëf bi mooy lan mooy jéem a woor bisu arafa woor boobu ngay woor bisu arafa da ngay gis ni suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam day bañ ko laajee waaw bisu arafa moom suñ ko wooree lan moo ñu ci a nekkal ci njëriñ daf ne suñu borom yàlla day képp koo xam ne woor ne bisu arafa ak mi nga xam ne yaa ngi ko doon dund ak ak la nga xam ne yaa ngi ci jëm ci mboole mi bakkaar ya nga xam ne defoon nga ko ci yàlla subhanahu wa taala dana la ko baal mu am beneen xadis boo xam ne kii di abdullah ibnu omar moo ko wax nee na ñun day jamono bii nañ ci bi dund ñun ñëpp jàppoon nañu ne woor benn bisu arafa mi ngi tolloog ñaari at yu jullit tegala woon di ko woor loolu mbokk kon moo tax ba ngalawaay li nga xam ne mooy arafa bii di ñëw te di tombeeg altine insha allah xam leen ne altine bu tombiwul woon ak arafa sax woor ko ci sunna yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam la bokkoon amma nag mu far tombeeg arafa nga la waay képp ko amul ngant na fexe woor bis bu mag boobee ñaari lu jëf bi ñaari lu jëf bi mbokk mooy bari ay ñaan suñu yeneen bi salallahu alayhi wa sallam dañu daan wax bis bi gën ci at mi day mooy bisu arafa waaye ñaan gi gën gu doomu aadama di ñaan mooy ñaan gum ñaan bëccëgu arafa mu ne man day maag yeneen ci yi passé woon amuñu lenn loo xam ne ñaan nañ ko lu gën wax da ngay wax laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul yàlla moom dong amul benn mbokkaale lahul mulk wa lahul hamd ñeel na ko moomoom gépp ñeel na ko cant yépp wa huwa ala kulli shay'in qadir ca mooy ki nga xam ni moo am kattan ci lu mën a doon mbokk bi mooy zikri bi gën a màgg bu doomu aadama di zikre mooy ñaan bi gën a màgg bu doomu aadama di ñaan yi te boo ko xoolee ak ñaan nekku ci waaye mbokk kilifa dëgg ñëw aajowoo tagg ko loolu moo gën a màgg nga taxaw di ko ñaan loolu tax ba suñuy aada da ngay gis ñii nga xam ne dañuy am ay xew ña ñuy tudde naan ñii seen i géewuñu judd lañu bu ñu ñëwee ñu leen ñaan day ñu rek commencé ñu tag tagg seen i bàyyi su ko defee ñu jël cër bu rëy jox leen loola tax yow ñu bëgg a ñaan yàlla ñaan bi gën a rëy mi ngi noonu yow ñu bëggoon def zikrullah zikr bi gën a rëy mi ngi noonu moom la yooyu ci bàyyi islam daan wax ni ki xëy suba wax ko téeméeri yoon amul kenn ko mën a liggéey ci bis boobee lu gën a baax lam liggéey xanaa ku def lu ëpp doole ca mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir ay yéen mbokk jurit bisu arafa day mooy bisu ñaan waaye mooy bisu def lu baax bisu torox la it ci kanamu yàlla jalla waala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn at la at ci dundam keroog ba mu demee daa boole tisbaar ak takkusaan julli ko ba mu paree ca julleen nga mu dem ca benn montagne bu ñuy tuddee jabalu rahma taxaw ca kaw gileemam nga di ñaan di ñaan ba baa jant bi di so loo xam ne dana jege lu mu bon bon quatre heures de temps rasul sallallahu wa sallam taxaw ci benn place di ñaan borom bi di tudd borom bi di lakk borom bi loolu it mbokk mi ngi noonu li gis boo xamee ni nii loo mën ci zikrullah loo mën ci ñaan loo mën ci def lu baax def ko ci suñu xutba yi passé ñu ngi leen di wax ne am na koo xam ne dañ ko doon tuddee Hakim ibnu Amzar ca jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayoon ko mu am lu mu am da daan def jaam bu mu gis mu jënd jaam bu mu gis jënd ba am téeméeri jaam ànd ak ñoom ca aj màkka ga mu boole ko téeméeri giléem suñ demee ca arafa bu jaam yi dee ñaan di ñaan di ñaan ba jant bay waaj a so mu woo jaam yépp na leen goreel naa leen dem leen ay gor ngeen yéen a moom seen bopp ña fekk woon arafa yépp daa di kabbar daa di jooy daa di ne ay yàlla sa jaam bi di xakim de goreel na jaam yi mu amoon yépp ay yow yàlla say jaam la ñu yàlla nañ ñu goreel ci sawar jàpp nañ ne day yàlla dana nangu ñaan googu yàlla yàlla boole ñu ca mbokk julit bisu arafa ñu ngi nii di gis boo xamee ni nii war nañoo góorgóor lu ñu mag ñi def ko bari zikrullah waaye suñu xutba bi passé waxoon nañu leen dugg nañ ci fukki fan yoo xam ne fukki fan yi zikr la fukki fan yi màggal yàlla la waaye zikr yooyu dana gën a fette ñu ko nag ca fajaru arafa su boobaa moom da ngay gis ne bari woon na loo xam ne dañ koo sunnaaloon ñu jëlee ko ci it ci sahabatul kiram heure bu ñu masaan sëlmal ci seen julli ya daanañu yëkkati ay takbir yoo xamee ne nii gox yépp ca lay nekk ñépp di kabbar xatta jigéen ñi nekk ci seeni kër ñépp loolee mbokk di mbir moo xamee ni it ñu góorgóorlu bàyyi ci xel kon bu bi passé déggoon ngeen ko la gën a mag ci kabbar yooyu mooy allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ورزقه باري فلك waaye rawatina nag sa nga xamee ne sëlmal nga ci say julli loolee dana nekk gisu arafa dana nekk gisu tabaski ba ak ñetti fan ya ca topp doonte ne boo dellu woon ci mazhab Malik la gën a siiw ci ñoom kàbbar yooyu ñi ngi koy commencé te la nga xamee ne ni mooy tisbaaru bisu tabaski ba mi ngi noonu ci wàllu googu ay yëf ba ko nit xam leen ne it ñi ngi séentu gannaaw arafa jaamu yàlla bu mag ca mooy bisu tabaski bi nga xam ne nii borom xam-xam yi am nañu ay ixtilaaf ba ñu bari ca ñoom dañ ne moo gën a mag sax bisu arafa bi yowmul xajjul akbar bi julit ñi di def la gën a bari ci seen ajja loole dañuy gis suñu borom nee na bépp xeet bu fi jaaroon utal naa ko bis bu ñuy feetoo di tudd yàlla ci mbaayu ma yi loole itamit borom di seddali ko ci ni jullilal sa borom ca reyal ñeel sa borom loole kon ca la suñu yeneen alayhi salaatu wasalaam sunnaal la nga xamee ne nii moom mooy tabaski tabaski boobee nga xam ne yeneen bi alayhi salaatu wasalaam def na ko ci digle na ko mooy képp ko yàlla may nga daa di rey benn gàtt doonte ne ne ci yombalu lislaam kii nga xam ne mooy Abu Ayyub al Ansaari nee na ñun dañu ba yeneen ci bi di dund borom kër bu nekk dana rey ab gàtt ñeel waa këram ca mooy kër gi bu téeméeri nit nekkoon benn gàtt bañ fa rey mboolem waa kër ga yëpp am nañ tabaski bokkoon na ci it ci am yombal mooy juróom ñaari borom kër mënoon nañoo daje jënd benn nag rey ko séddoo ko ñoom ñëpp am nañ tabaski noonu it lañ koy wax ci gileen yëpp loolu mbokk mi ngi noonu la ca gën mooy la nga xam ne muy am xar te it la ca gën mooy xar moo xam ne dem na ba am at doonte ne ne lenn ci borom xam-xam yi nee nañ bu rombee juróom benn weer rek mat na tabaski loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax rasul salallahu alayhi wa sallam teere ñu ca ñeent yoo xam ne moom du mat tabaski mooy boo xam ne daa pat benn bët ba baaxul kon bu gumba moom taxul ñuy wax boo xam ne dafa lafañ benn tànk ba yàqu na boobi du mat boo xamee ni ni daa feebar ku ko gis xam ne daa feebar kenn du ko tabaski boo xam ne nii daa loof ba nekk ay jëri kese kenn du ko tabaski ñeenti yi mooy yi nga xam ne matul ci tabaski am na ci nag yoo xam ne dana wàññi yool ba lu mel ne ba génn ba daggat ba béjjën ya dammat ay ba nopp ya wàññeeku ila axiri waaye boo moytoo ñeenti yu jëkk yooyu ma la wax meneen xar mu mucc ci yooyu loole da ngay gis ne mbokk dana doon loo xam ne nii dana mat am tabaski ay yéen mbokk julit tabaski boobu xam leen ne suñu borom nee na soxlawuma yàpp yi soxlawuma deret bi li ma soxla mooy ragal yàlla gu bawoo ci yéen looloo tax dañ koo war a def jaamu yàlla dañ koo war a def ak puukari bàyyi mu boobu ngay rey ab jaamu yàlla la yàlla da koy bind mi ngi sàbbal yàlla yàlla da koy bind mi ngi jullil yàlla suñu borom mu ne kullun qad alima salaatahu wa tasbiha su ko defee heure boo koy rey nga la way rey ko ci yàlla rek a tax yàlla yaatal na sa kattan yaa dem di jënd xarum deux cent mille ak trois cent mille xëy na yow yaa xam bu dee sa kattan yegg na foofu ca du la lor bu dee sa kattan yeggu fa bu dee la ngay jënd mat nam tabaski walaay buy quarante mille buy cinquante mille yàlla mën na la caa bind tuyaa ba ju raw ko jënd xarum trois cent mille ndax la nga xam ne mooy la yàllay xool mooy ku nekk nan la ko mbir mi yëgg ci xolam ban yéene ban sellal la nga xam ne moom la ci am loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mooy it lenn li nit ñi def xari cinq cent mille sept cent mille un million un million cinq cent mbokk loolu boo koy def def ko ci yeneen mbir waaye xamal ne buy jaamu yàlla rek a wax dëgg yàlla loolee moom nekk na loo xam ne ni ëpp na su ko defee mbokk tabaski mi ngi noonu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daañu koy tëral te la nga xamee ne ni moom mooy xeetam bi jubluwaay bi gën a rëy bi ñuy fàttali ko yow doomu aadama mooy xam ne kat yow ab jullit nga heure booy julli yàlla rek a tax ngay war a julli heure booy rey yàlla rek a tax ngay war a rey moom la suñu borom yàlla wax ñu qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bi dalika umirtu wa ana awwalul muslimin ngir ngir man day mboolem samay julli mboolem samay rendi loolee da ngay gis ne suñu borom yàlla dong laa ko jagleel amul kenn koo xam ne nii danaa ko bokkaaleeg moom ci loolu loolu ñuy wan ne bu àdduna yàgg mukk bañ naan la demal rey béy bu ñuul bi wala ganaaru kiir kiir bi ngir loo xam ne dañ koy neexale ay cir bi ay yéen mbokk julit ñi ngi nii tiim ñu bis bu màgg muy bisu arafa waaye ñaareelu bis bu màgg di bisu ayib bisu ayib boobu nga xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day daana wax ne ne ñépp génn dem ci jullikaay ba mag ndaw góor jigéen jigéen ñi ànd ak règle sax nañ génn dem jamono jooju melul comme jamono yi tey nga xam ne nit ñi dañoo am problème fan la ñuy jëm ci seen yére am naa sahabatul kiram seen problème mooy fu ñuy jële yére ba ñëw nañ ci yonente bi alei salatu wasalaam ne ko ay yumbi yàlla yonente dana am ci jigéen ñi day ñu am lu ñu sol pour génn mu ne ko amul lu mu sol ba génn na dem at bi lu mu sol ba génn waaye na ñëpp a dem ci julleekaay ba ña nga xamee ni dañoo ànd ak baax beru waaye ngir fekkee ñaan nga nga xam ne dañ fay ñaanal julit ñi iyéen mbokk julit aka doon neex àdduna yëpp àndoon ci benn julli waaye bokk na ak nattu boo xam ne suñu borom yàlla natt na ko mooy doomu aadama yi àndunoo na am am nañ ay ixtilaaf ci seen biir weer yi bu feeñee ndax day ëmb àdduna bi wala weer yi dañoo war a xaar gox bu nekk mu feeñ fa mbokk ren day bokk na lu ñu yàlla defal weer yi day samedi feeñoon na ca makka yàlla miy dogal weer we feeñ na ca muritani yàlla miy dogal weer we feeñ na ca mali bokk nay commission Guinée commission Gambie ñoom ñëpp bokk nañu it wane ne ñoom talaata la ñuy julli ca ñu ngi fàttali it ne te ko dem ca kër nga laaj sa maam Sénégal day yàgg nañu julli ci xabaaru Mali xabaaru Mauritanie xabaaru Niger lu tax mooy la nga xam ne moo nekk ci téere yi day mooy gox bu nekk ca ñu ngi jublu ci jox gox mooy région boo xamee ne nii lu mel ne Afrique de l'Ouest yëpp ab gox la la nga xam ne Afrique centrale ab gox la kon mbir yooyu yëpp sësaloo bu fa leeri seen ñépp ci waroon a tënku na am loolu yàlla nattu nañu amul doonte ni ñun ci jàkka ji ñi nga amoon aada di ànd ak ña nga xam ni bu ñu amee xabaar yu wér ci ne weer yu feeñ na dañuy taxawal la nga xam ne mooy seen iit yàlla def ñu koy dëppalee iit ba nga xam ne waa Makka dañ koy def ca adduna bi yépp Makka nekk seen capital nekk seen central loolu tax gannaaw ba ñu ñaanee suñu borom yàlla nangul ñëpp incha allah ñu ngi war a taxawal fii talaate bii di ñëw la nga xam ne nii moom mooy julli iitu tabaski di julli boo xam ne nii la tax ñu koy def mooy ngir dabu ña nga xam ne dañoo bëgg julli ci yowmul hajjul akbar amma bu dee rey ga rey ga moom yeneen ci baal yi salaatu wasalaam nee na ayaamu tashriq bisu tabaski bi ak ñetti fan yi nekk ci gannaawam foo ci rey sa xar am nga tabaski loolee ko nit yow bu la nee xool nga julli ba pare nga bàyyi ba suba rey boo jàppee na rey da ngay rey da lay jural ay fitna yaag ña nga xam ne da nga leen a dëkkal doonte ni da ëpp ci tuyaaba mooy rey ci bisub tabaski ba waaye ñaareel ba ñetteel ba ñeenteel yooyu yépp da ngay gis ne mbokk nekkoon na loo xamee ni nii boo ca reyee itamit am nga la nga xam ne mooy tabaski mbokk gannaaw ba loolu lépp wéyee itamit ñu ngi fàttali waat ni mbokk julit képp koo xamee ne nii yaa ngi dund fii ci Ndakaaru war nga am loo yëg sa xol war ngaa yëg ne suñu borom kontaanul ci waa Ndakaaru kontaanul ci dëkk yi bëri ci Sénégal lu waral loolu laajal suñu takkimaan yi la nga xamee ni moom lañ daan tudde wax set mi ngi daan commencé le quatorze août jamono boo xam ne gàncax yépp màgg na gàncax yépp ngi commencé di tóor tóor bu ko defee yàlla indi wax set muy taw suba di taw ngoon tey waxuma amuñu wax set waaye sibbuloobu ñu sax lu ñuy tuddee taw ndakaaru la nga xam ne dañ daan wax ne ndakaaru nawetam ñi ngi ubbi quatorze juillet tey waxuma quatorze juillet dem nañ ba passé quatorze août mbokk loolu leen danga koy waral bàkkaar yu bëri suñu borom nee na walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard heure bu waa dëkk bi saxoon ci ragal yàlla mu ubbi barke yi asamaan heure boo xamee ne yàlla téye na ab tawam mooy lan wala nuziqannahum min al azabi al adna dun al azabi al akbar laallahum yarjiun dañu leen di mosal leen ci suñuy mbugal ngiree doomu aadama yi dellu gannaaw maa ngi fàttali ndaw ñi loo xam ne ci boori mille neuf cent quatre-vingt kii nga xamee ni nii mooy Abdul Aziz di Sëriñ Abdul Aziz mi nga xam ne gis ñi fi nekkoon ci gën baax mag ñi fi jaaroon demoon na ci président de la république ñaan ko ne ko dañoo bëggoon ñu may ñu àjjuma ji di ñëw ñu def ko bisub ñaan ñu daal di joxe ordre ne bu benn baar ubbi bu benn cinéma ubbi bu kenn yëngal dara ñépp nañu ànd toroxlu ñaan yàlla dogal loolu lañ ko defee Sénégal Bakel ba Dakar lépp ànd tawandoo mbokk loolu du wane ne kon yàlla yor mbir yi waay loolu ñu ngi noonu doon ne ne teg na ci wax bi rafet ndax ba mu déggee gars yi naan sëñ Abdou sëñ Abdou daa delluwaat ca rajo ba naan maa ngi leen dégg ñu naan sëñ Abdou sëñ Abdou jaamu yàlla la bu amul fanul manul dal na ne ñun ñëpp nañ ànd ñaan kenn xamul kan ci ñun la yàlla nagum ñaanal ñu ngi noonu yàlla yàlla jéggal ñu ci jéggal ko loolu it mbokk dañuy gis ne benn ñaari message lañ ci mën a déggee bu ñu jàqee war nañ dellu ci yàlla waaye bu ñu delloo ci yàlla ba yàlla wuyu ñu it war nañoo sax ca loolee tax yàlla wuyu ñu ba ñu delluwaat ci caaxaan ya su ko defee kon mbokk ñun amuñu kattanu réew mi yëpp ñu saxal leen ci njub waaye ñu ngi tallalaat suñuy loxo suñu borom moom li nga xam ne mooy nangu ñaan yal na yàlla subhanahu wa taala jéggal ñu yal na yàlla yërëm ñu yal na bu ñu yàlla toppee bàkkaar yi nga xamul ci ñun di def yal na ñu yàlla ëmbal njéggalam ak yërmandeem yal na ñuy dabal tam bu ko neex yal na ñu wàcceel taw bu barkeel taw bi laabal suñuy jaww taw taw bi dekkal suñu tool taw bi xettali suñu jur taw bu ñuy dàqal lépp loo xam ne nii danañu indil ay fitna yàlla na yàlla boole ci ña koy sant gannaaw bu ñu xéewal yi yàlla nañu yàlla wërsëgal arafat bii di ñëw mboolem xéewal bu ci yàlla di wàcce yàlla yàlla boole ñu ca la nga xam ne mooy tabaski nga nekk ci gannaaw mboolem xéewal yi ci yàlla gërëm yàlla yàlla boole ñu ca mboolem jublu yi ci nar a am yàlla yem ca jëfee ba ñu yegg ci suñu biir xol yàlla yàlla nangul ñu nangul bépp julit allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabil izzati ma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulilahi rabil alamin